fu ñuy dooree tey nañ ko commencé suñu diggante ki nga xam ne nii moom mooy Pape Diouf ak ki nga xam ne nii moom mooy Sidi Diop gannaaw démb ba ki nga xam ne Sidi Diop dafa sol daalam dem seeti ko loolu moo tax sax démb émission bi nga xam ne nii woo nañ ko amal foofu sa Arbrax TV mujj am waaye tey à partir de vingt heures lañ ko nar a amal spécial Sidi Diop mu toog ñun ñëpp ñaay toog waxtaan ak moom si li nga xam ne nii moo nekk perspective yoo xam ne nii moo war a am foofu le vingt neuf juin foofu sa Zénith alors. Ousse wala Nana. Mhm. nan nga gisee conseil yi nga xam ne nii kii di Pape Diouf jël na ko jox ko kii di Sidi Diop pour mu dem seeti ki nga xam ne nii mooy magam Waly Ballago Seck moom mi ko waxoon ne. Mhm. boo ñëwee fëgg bunt bi kenn ibbu la daaj dil nga dugg. dafa mhm. mel fu mu toll nii nag na bay waaye ki dem Bercy. Zénith. le 29 yaa dem Bercy voilà. Euh, donc euh, ñuy rafetlu kàddu yooyu ba pare avant kàddu yi sax dañuy rafetlu geste bi nga xam ne. Euh, Sidi def na ko muy seeti magam muy Pape Diouf parce que Pape Diouf ku ko xam-xam ne légende la ci musique sénégalaise bi ténor la euh, boo xamante ni ndaanaan la bu kenn dootul présenté ndaanaan la boo xamante ni li mu def ci musique sénégalaise bi euh, du ma ne euh, kenn defu ko fii mais marqué fexe na ba marqué empreinte am donc Sidi Diop xëy na loolu la comprendre xam ne Pape Diouf ndaanaan ku lu fadrin la te ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wan fu lampe bi féete mmh. il si bien compris donc seeti gi ko seeti la njëkk rafet rafetlu ba pare parce que quoi qu'on puisse dire tamit bu fekkoon Sidi dafa toog coin rek xëy na wax yu rafet ya fa Pape Diouf yëkkati mënoon ko bañ a jël comme xam nga mm-hmm. donc geste bi nga xam ne moom la ñu njëkk a mooy moom bi mu def moom siidi Diop waaye tamit euh, comme ni ma ko waxee lenn du ci dem bàyyi moroomam xëy na Sidi bu toogoon coin Pape Diouf du yëkkati kàddu yu rafet yooyu mm-hmm. waaye Pape Diouf it bu bu bu sii di ñëwoon mu di ko wax naka su noonu kon xëy na euh, accès boobu nga xamante ni dinañ ko am pour mën a wax naan dafa wax lu rafet du ñu ko am comme xam nga mm-hmm. donc moo rafetal sii dee rafetal pape rafetal mm-hmm. donc mu doon ay kàddu nag yoo xamante ni vraiment c'est c'est c'est à saluer mm-hmm. parce que koo xamante ni ne euh, man maa ngi déglu Pape Diouf mu naan ko ñun bi ñuy door euh, dañoo dooree ci lu metti ndorteel lu metti la woon parce que dara nekku fi woon xëy na am na mag ñu ñu ci jiitu waaye ñun dañoo déparé ak zéro Mm-hmm. amuñu kenn ku ñu jàppale. Mm-hmm. ñuy xuus di di di di di dem euh, bari na ci ñoo xamante ni xëy na ñu ngi woon ci suñu ginnaaw di ñu jàppale mais doo leen sax xam. Mm-hmm. parce que dañ doon jàpp te yàlla rek tax. Pape Diouf aussi wax na ci digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Mata Diop Soubatel euh, dem na sax banaan euh, bi bi bi mu jàppee ni euh, dafa am c'est-à-dire programme boo xam ne dafa war a xewu xew nit mhm. Pape Diouf ci boppam moo ko xelal ne ko na di dem parce que Sidi boobaak léegi mi ngi marqué empreinte am mu doon foo déggee loolu Diouf ci boppam moo ko wax ok donc dëgg la effectivement loolu dëgg bu wér waaw waaw donc euh, euh, mu mu indi tamit euh, révélation boobu nga xamante ni muy wane ni moom iñaanul mhm. parce que mënoon na gis Zénith xalaat ni am peut-être mën nañ fa gagner mën nañ fa nangam mën nañ fa nangam mhm. ak yenn opportunité yi parce que ñu bari ci sénégal yi fi ñu juumee te Pape sax wax na ko mooy dañ naan dama war a dem Zénith forcément dafa war a fees alors que euh, xëy na fees gi dina bokk ci succès bi mais maa ngi dem Zénith rek succès la. ala kuliyaal ala loolu rek succès la forum dina nekk ba pare ñu bind sa tournée Sidi Diop jaar na Zénith. parce que Pape Diouf mi ngi koy wax ci ci ci ci ci ci euh, euh, ITV boobu voilà di wax ni képp ku fa dem dinañ bind sa tur ci foofu muy cest lu dootul fay mhm. kon loolu rek ndam la. mais euh, sénégalais yi lu ci bari wala artistes ci bari foog nañ ni salle bu nu war a dem rek dafa war a fees donte dañu koy ñaanal réussite totale moom Sidi Diop parce que wax dëgg yàlla fenn fu mu dem rek suñu drapeau bi lay yëkkati te Sidi Diop toll na foofu toll na foo xamante ni jamono ji doonatul Sidi Diop bu suba teel dong doonatul Sidi Diop bu bu bu bu bu Sénégal, voilà euh, jóob la boo xamante ne tey jii euh, bu Afrique la mais bu monde entier la. Mm parce que fu mu dem. fu mu dem dafa war a représenter li nga xamante moom mooy drapeau sénégalaise bi mhm. te euh, Pape Diouf aussi wax na lu rafet euh, ne ko dinañ ci jàpp zahir ak baatin te fu ma toll may ma rek te fu ma toll dinaay dinaay dinaay fexe ba yaa ngi may Pedro sama repère euh, damay dama doon woo ki nga xamante ni moom mooy Matar Diop suba teel mhm. di ko laaj mbir yi fu mu toll ndax dama dama stressé mhm. te loolu li ko waral mooy famille bi nga xamante ni bokk nañ ko te ñëpp ci war a jàpp mu dellu ko waxaat lu am importance te ko na dem seeti Wally Balago Seck mm-hmm. wax na sax ba ne ko seetil artistes yi bul bàyyi kenn bul am xàjj ak seen te loolu moom moo leen war ñoom ñoom ténor yi mhm. muy boole fexe ba xale yi booloo nekk benn fexe ba xale yi kenn ku ci nekk xëy na concurrence mënul ñàkk parce que moom mooy def charme métier bi mais ñu fexe ba boo tappe xol yi mhm. kenn ku ci nekk booy dem même boo mënul ñëw mhm. sa loxo na ñëw wala sa sa sa doole wala leneen ak leneen loo xamante ni dina indi ak njàpp ndal ci li nga xamante ni moom la dëgg ma alors t'as nañ dem déglu nañ dem seetaani euh, rencontre boobu nga xam ne amoon na si diggante ki nga xam ne nii moo nekk Pape Diouf leader de la conscient ak ki nga xam ne nii moom moo nekk kii di di Diop leader cinq étoiles ñoom ñaar seen waxtaan bi daañu ñëwaat si plateau bi bi daal di si wax xalaatam. formation yi kon alhamdulilah sant yàlla. te boo doon dem Zénith du jouer cette yow bu la am stress bu zénith na fees dëgg rek le fait que am nga mérite kay wallaay jot a am nga mérite xam nga fan nga amee mérite nga am mérite am un producteur boo xam ne décroché na la salle jamono dafa metti nga am producteur mu décroché la salle loolu rek mérite nga am chance di dem ci vitrine boo xam ne bokk nga léegi waxuma la ci annale musique de la musique sénégalaise mais tu fais partie de l'annale de la musique du monde. macha allah boobu boo demee ba ci ba ñu dugal la ci sa loge. ñu fa joué yëpp dañuy bind seen tour ci mur. nañ la gaay woon nga jël sa temps nga xool ñu fa joué. Mhm. te ñooñu ngay dégg ñuy wër àdduna. kon yow am na mbir. mu fees nag wala mu ñàkk bañ a fees yooyu bu mu leen sonn la kii mm-hmm. oh, yooyu bu leen ko def problème un ah, artiste ah, ah. maa ngi joué nit ñi ñëw nañ wala nit ñi ñëwuñu mm-hmm. peut-être fii lañuy ñuy valoriser loolu mm-hmm. mais loolu ay détails la te wallaahi suñu borom dina la deful sutura ndax lii yow bu yow Sénégal la te réew mu nekk na nga toll rek ngay taxawee Sénégal tuuti na ci superficie mhm. waaye dafa yaatu lool ci valeur donc bu la neexoon mën nga bañ a ñëw ndax ñun déjà ñu ngi ci biir mhm. ñu ngi ciy liggéey ci zahir ak ci baatin ci liggéey si jaamu yàlla si constance donc c'est la famille si mhm. c'est une famille ñu gisee ak ñu ñàkk ba ñu gisee xamal ni seen famille mm. amul lu ngeen di dugg te mooy umb mm. ndax ki nga xam ne mooy seen kilifa yàlla dogal ko mm. muy ndaw amul dara lu muy def te du ci waxtaan ak man grand kat lii laa bëgg a def lii mooy sama projet ma ne ko go ahead bul taxaw demal demal ba bii man la ci njëkk a waxal ma ne ko jox si di mu dem mm-hmm. sur amatul lu ñuy jëlal si bi mu dem. da mhm. ngeen jóg. donc vraiment nice. Mhm. maa ngi gis aussi sa communication. Mhm. Zénith de France rek. àdduna la. wool ñëpp. jëlal sa temps. c' est vrai que jot amul. Ah. mais sénégalais moo bëgg ku ko yëg. ñenn ñi woo leen ñi nga mën a defal vidéo defal leen vidéo. ñi say xarit mën a woote nañu woote ñi say mbokk mën a woote nañu woote na ñëpp woote ñëpp jàpp ci ñu def ko affaire u Sénégal Sénégal garabu Baye Fall la bu nee ngi ci te bu ñu booloo doon benn ndam ku ñu dajal ñoo la mën bu ñu da booloo doon benn ku ñu dajeel ñoo la mën sa xaritu artistes yi aussi seeti ñëpp amul xaaj yi amul seet man sa grand frère. Mm. Mm-hmm. maa la jox conseil boobu. Mm-hmm. même ku munul ñëw seeti ko. Mm-hmm. demal seeti ñoom moomoo. waali demal seeti ko. seeti nga grand Youssou demal seeti père Omar père mu ñaanal la. Baba Maal moom sa papa la. bul bàyyi kenn demal nga seeti ñëpp ndax bés boobu bésu Sénégal la. waaw ñoom booy Ibro seeti ñépp dina am ñu mën a ñëw dina am ñu munu ñëw. mais lii xew la. lii sa xew la yaa ko moom bés bi ba pare nag mu doon bésu Sénégal kon àndal ak gars yi fu koo mën a woo rek seeti ko demal seeti ko ndax man bi ma ci tolloo noonu laa def damaa woo ñëpp te yow gis naa ni yaa ngi nekk ci yoon boobu asal gunge ko mu dem seeti ñëpp waaw ndax mbooloo mooy doole Sidi léegi dépassé na Sidi Sénégal Sidi Afrique yaa ko liggéey yaa ngi persévérer yaa ngi job yaa ngi koy dund vingt quatre heures sur vingt quatre seetil ñëpp ñi mën a ñëw nañ ñëw ku mënul ñëw dina la ñaanal wala mu woo ay nitam ne leen sii dee ñëw gaa yi takk jóg mu jeex waaw asalaamaaleykum dégg ngeen kàddu yi nga xam ne nii kii di Pape Diouf yëkkati ne ko jëmale ko si ki nga xam ne nii moom mooy di Diop mu nekk ay kàddu yu nga xam ne nii ay kàddu rafet la ay kàddu responsable kàddu yi nga xam ne nii euh, lii leen di xaar si artistes si nga xam ne ñoom ñoo nekk génération bi nga xam ne ñoo topp si kii di euh, ñoom suñ Ndour ak ñeneen et c'est normal mu daal di tuddee boppam euh, leader de la génération conscient alors Pape Diouf il est vraiment conscient Ousmane. waaw alhamdulilah moomu ci mbir mi nii mu demee. xam nga dañ naan Sénégal benn bopp la. Mhm. fii dëkk boo dem benn bopp la benn dëkk amut ñaari bopp. ah mais waxin la. dama lay wax rek <laughs> benn dëkk amul ñaari bopp. Mhm. Sénégal lépp benn bopp la France benn bopp la. Océanie ni benn bopp yu bëri la am. déedéet 52 états yi ngay dégg sax benn kenn koy jiite. muy benn bopp la waxoon naa la fi barki démb mm-hmm. teel a nangu day noppalu ñuus muy duma la la ma indi yooyu la ma fi indi ay ay góor sax ay teel nangoo nangoog ay affaire yooyu noonu ut pourquoi nga bëgg ay problème li amul benn problème. yow yow yaa yow xaaral ba xool fa ba jëm ba xam na problème lay wax wala waxuma problème. dafa am mu dugal problème parce que. ñun lii lan ñu war a xàmmee nee naa leen dañuy show business show biz maanaam c'est show business dañuy ut mais nan la ñuy utee ci yar ak teggin tam war a neex Wally Seck yàlla dogal Pape Diouf dofut ba jël sii di Diop yebal ko ci Wally Seck du coomo doomu jaale ñu ngi ji xam na comprendre na maitrise na xam na it ni muy deme moo tax parce que kii Wally Seck kilifa la am baat boo xamante ni bu ko yëkkatee ci sa bis mais ma waxal la dara Wally wax ci ñàkk ci wax bis bi day réussir waaw mais wax mais wax ci daa gën voilà jëf ci daa gën nga xaar ko une fois waali jëf ci ñàkk cee jëf bis bi day réussir wax ci ñàkk cee wax bis bi day réussir mais mu wax ci te jëf ci daa gën ndax loolu la ko yàlla may moom la ko may fii ci sunu réew di Sénégal parce que amul affaire yi amul ay ma dem te ñëw amul xiiroo amul ŋaayoo amul ñamm sax amul ñuq sax amul mbolom sax lenn képp la dama la ko fi waxoon dama koy waxaat Sidi Diop Wally Seck la bëgg. Euh, fi ne bi mooy keroog anniversaire bi xam ne waa Seck mu ko woon def bokk na si artistes yu njëkk exot Sidi Diop bokk na si artistes yoo xam ne ñoo njëkk def am ñoo njëkk def seen ba ki nga xam ne nii Mama Diaga génn àdduna ak moom it. Sidi Diop rendre hommage sax Sidi Diop Wally Seck la bëgg. Wally Seck bëgg Wally Seck tax mu nekk ci ginnaaw Wally non nekku si ginnaaw waaw ba tey bu nekkee ci kanamam it bëgg Wally Seck tax ñu ne leen nii. voilà foo ne Wally ni Sidi munoo ci dara. xam nga lu tax nit ki boo ko bëggee da ngay jël fa may teg tànkam nga fay teg tànkam du la raw de da ngeen di langoo de du la raw de ñoom ñëpp parce que xam nga lu tax Wally moo dox doxin bu rafet moo dox doxin yu fit. moo dox doxinu góor moo dox doxini fii dañ ko fekk affaire bi niveau bi dañ ko war a yóbbu fii waali moo doxee doxin boobu ba pare jël mbiri ñemeloo ko gars à cent pour cent léegi ñemeloolu googu mu leen ko ñemeloo à cent pour cent moo tax faaw muy neex muy naqari ko ci am xelu muus tuuti tuuti ni Sidi xanaa amoon yeneen ñaari Sidi bu amoon nga gis musique Sénégal bu safar hmm? yeneen ñaari Sidi hmm. bu amoon tuuti. Hmm. mooy booy bu dëgër fit osé. nga gis lu neex biir seen. na moo tax la moo tax le fait que nga wax loolu dama si appuyé bu baax a baax. Hmm. parce que fii ak loo mënti wax. studio bi rek moo fa nekk benn artiste bu nga xam ne nii euh, mosul dem si concert Wally Ballago Seck wala soiréem naan ko maa sa ginnaaw sama papa nga ak yeneen alors artistes yi la plupart képp koo si gis danaan la Wally day ñëw si concert maa sa ginnaaw sama papa nga jiitul lépp loo gis jiit te tey jii jàpp naa ni si wàllu musique sénégalaise sixième sensation Wally Seck mooy seen jiit mais Sidi d'accord loolu ba d'accord na peut-être je sais pas d'accord na d'accord <laughs> mais moo ngi jël mbaggam di ko teg fu Wally Seck teg Wally Seck tànkam dafay teg tànkam d'accord na ko tax tamit musique bi daal di d'accord na ko de d'accord na mais ba ko joxee feu vert jël feu vert am waaw ah, ne ko fëggal bunt bi wala daaj na ko waaw bañ dañ ne bëreet tàmbali mu tàmbali nekk ci yoonam di ko toj di dem soirée mm-hmm. di boof li ñuy di boofee mm-hmm. mu taxaw waali téye ko ci loxoom xëcc mm-hmm. ne ko fulla du jaay daqaar des koy mëcc bunt baa ngi fii ay yoon bi fëggal buñ la bañee wuyu aréeral këddal bunt bi nga dugg ci biir. moo tax it Sidi këdd na bunt bi. moo tax këdd na bunt merci beaucoup euh, Ousse jaajëfute waaye tamit jaajëfe Sidi Diop kooku ci yow lay wax. donc merci beaucoup pour hier soir daf tuy kontaan na si bu baax a baax euh, mbaxu saalum bi neex na trop xaw ma yaa ko togg xaw ma taxuloo ko ah. <laughs> ay mbaxu saalum bi rey kër si Diop moom démb neex na macha allah merci beaucoup allah aussi waaw dama laa kii dama laa pont mhm. mhm. da nga maa pont mais ma kii si gisee nañ këram am na am na mbaxu saalum kañ dem man ko waaw man moom déew ma këram gisee ne parce que damaa def sama émission ba pare ma ak DJ Yves biñ pare mu ne ma kañ ànd ñu ànd mhm. xaw ma mais ñu dem foire gis naa sax Matar Diop suba teel pour la première fois. Mm-hmm. démb ci guddi. pour la première fois mu gis. mu bëggee la moom moo nooree nii. sama waa nii siyaar naa naa la. naka mu taw féex mu ngi naan. moom damaa dem ñaar moom doomu waale nga. waaw ah. te te te teewul ñu ngi am fu ñu may dëkkale. taw na yow. dem ñu toog waxtaan mu xamal. non ñi comprendre du ñu indi ay kii du ñu wax. ñi comprendre exactement tey jii mm-hmm. boo toogalee ki nga xam ne nii. Sidi Diop la nga comme ça représentant Sidi Diop nga. Mhm. damay taxawaay taxawaay Wally Seck. su ma mhm. tax bu amee leneen tamit contraire bi laay doon. donc bu ma jënte bu toogee ma toog ak euh, ma ma mel ni kuy nekk ak kii di Sidi Diop donc liggéey bee ko laaj. Mhm. waaye ñun faruñu ci kenn. effectivement la ñamal alors sur ce nañ daal di